bés ni ki tey danañ jël décision pour yombalal dem bi ak dikk bi maanaam tere biñ ci daan def ci réew mi yëpp danañ ko bàyyi nit ñi danañ mën a dem danañ mën a dikk waaye danañ yëkkati aussi couvre-feu bi léegi au lieu muy tàmbali 21 heures 23 maanaam 11 heures ci guddi lay tàmbali ba 5 heures du matin. gare routière yi danañ reprendre pour transport urbain ak transport interurbain waaye gannaaw couvre-feu bi am na ba léegi. am na waxtu boo xam ne bii mise des transports dana ci waxtaan ak gare routière yi pour que surtout interurbain yi pour que ñu mën a tëj gare routière yi. réunion yi nga xam ne aussi tere woon nañ ko ci endroit public yi ak privé danañ ko reprendre restaurant yi également danañ reprendre euh, salle de sport yi aussi danañ permettre ci salle de sport yi nit ñi di def seen activité ci casino yi ñoom aussi danañ am mesure d'assouplissement yi waaye danañ respecter également distanciation yi ak mesure d'hygiène yi gouvernement bi comme ni mu ko dalee def boobu ba néeg ni mi ngi continuer di déglu population yi pour fexe ba relance économie bi nga xam ne président wax na ko ñu dund ak virus bi te euh, euh, jël suñu matuwaay ñu continuer ci waaye nag euh, loolu lépp dafa li muy ànd mooy port de masque bi nga xam ne bii moom alaakulli àll mënut a ñàkk ci bërëb yi nga xam ne nit ñi dañu fay daje ci transport yi distanciation bi nga xam ne bii également maanaam soriante bi ñuy digal nit ñi loolu aussi ba léegi mi ngi fi te it dañ ci yokk lenn bëgg nañ transport yi nga xam ne danañ koy reprendre rawatina transport interurbain bi oto bu ciy dugg bu ne ñu ñu booy depart ci gare routière def li ñuy wax manifeste manifeste mooy këyit bi wane ñi dugg ci oto bi euh, seen i contact ak fan la ñu dem loolu dana mën a permettre ba liggéey bu fekkente ne dara xew na ñu mën a topp ñi nga xam ne ñooñu àndoon ci ci voyage boobule gouvernement bi nag mi ngi mi ngi regretté li nga xam ne lii xew na ci ñaari fan yu ji yi euh, muy manifestation yi nga xam ne yi euh, ay ndaw ñu ngi koy manifester pour euh, ñu lever couvre-feu bi loolu nag malheureusement tax na ñu jàpp ci ñu xaw a lim bu xaw a takku ci bi ci biir Sénégal donc loolu vraiment loo xam ne naqaru nañ ko parce que askan wi war nañu xam ne lépp li nga xam ne li jël nañ ko ci mesure pour seen kaaraange dong la maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf